salaamaaleykum maa ngi nuyu suma bépp mbokku sénégalais góor ak jigéen mag at ndaw képp koo xam ne dëgg rek moo tax ngay dundu képp koo xam ne dara faqul sa bët maa ngi lay maa ngi maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant li ma dañuy ñëw nag di wax c'est trop c'est trop important et c'est très urgent mais ñaan képp ku jot vidéo bi nu ko transmettre ba 17 millions des sénégalais jot ci ndax li ki Sall def démb ci guddi ay ñoñam li ñuy def démb ci guddi ci te moom mu sant leen ko billaahi wallaahi wa taalaahi Macky Sall lii génnee lu lii bu génnee tas àdduna tas àdduna maa ngi la ñuy waatal billaahi wallaahi wa taalaahi di waat ci Maulana Cheikh Ibrahima Niass mi ma yaakaar àdduna ak illaaxira li ma la ñuy wax lu dëggagul amut benn sikki sàkka démb ci guddi dem nañ jëli Sonko te avant ñu koy jëli Macky Macky loo def yàlla weer la waay waay Macky loo def yàlla weer na makki bàyyi lu bon Macky bàyyi lu bon loo def yàlla weer na démb ci guddi dem na jëli dem na dem na ñu euh, drogué Sonko dégg nga li ma la wax piqûre ñiy wax leneen la li may wax dafa ma cee leer naññ comme midi. di la ñu waasal samay bakkanu doom bu dee lii may wax du dëgg bu ma paree vidéo bi yàllaa suuli samay doom léegi léegi léegi léegi Sonko jaralu ma ko Macky Sall jaralu ma ko ay ñoñam jaralu ma ko adduna jaralu ma ko alalu adduna jaralu ma ko lenn jaralu ma ko ma dama suur démb tey door a ñëw Macky Sall ay ñoñam ñu pikiir démb Sonko Sonko bi muy dugg ci biir oto ba negut newut ci fii ci planète bi newu ci ñu jël ko yóbbu ko futti ko ba ni ni ndeyam ni ko ndeyam juree solol ko caleçon caleçon laa leen wax de caleçon lañ solol Sonko bàyyi ko ba nga xam ne ay quelque temps affaire bi xaw na reprendre tuuti te xoole ba pare ils sont fait ils ont fait une chose très très très dangereuse vidéo bi dina génn dina génn mais bu ngeen bu ngeen bàyyee seetlu tuuti ngeen gis ne les paroles et les gestes ne sont pas pareils les paroles et les gestes ne sont pas pareils Macky Sall yaa bon Macky Sall yaa bon say ñoñ bon dégg nga at ndaw soosu xawma comment elle s'appelle encore Adji Sarr ñu def ñaari vidéo boo xam ne Sonko il est tout li mu soloon bi mu nekkee bi mu jógee ci euh, comment dirais-je ba ca police ba moom la solaat ci benn vidéo bi avoué lépp avoué lépp dégg nga deuxième bi beneen beneen film bi moom la ak aji Sarr non sama wëccu wëccu laay bëgg a def wëccu laay bëgg a def parce que loo xam ne doomu aadama def loo nañ ko côté bëgg ko il était pas avec ses ses sa sa personne loolu baaxul man yow Macky Sall yéenewuma la sax loolu billaahi wallaahi wa taala yéedoonu ma ko si benn doomu aadama du jullit du chrétien du kenn parce que lu bon baaxut lu bon baaxul luy luy tas réew baaxul Macky Macky yërëmal doomu aadama yi Macky loo lekkul woon doo ko lekk Macky alal li muy bari bari bari kër ga la muy rëy rëy ci benn néeg ngay fanaan lal ba ca genn wàllu gare ngay fanaan Macky kon nga xam ne àdduna du dara Macky àdduna du dara li nga def dafa ñaaw ci doomu jàmbur li nga def dafa ñaaw ci yaakaaru àdduna ku la wax Sonko mun na bañ a jël réew mi waaye am na njaboot Macky Sonko am na njaboot Sonko am na ay soxna Macky nga def lu ñaaw lii man waxuma sax sénégalais yu koy gis mais moom ak jabaram moom ak ay jabaram moom ay doomam di gis loolu war a ci réew ma war a tekki Macky yow bu méttee nga ñëw fii bu méttee nga génn ñëw boo yaa boo nekkul Europe nekk états uni Sonko Sénégal rek la am Sonko ay doomam Sénégal rek la ñu am Macky lu lu waral lu ñaaw Macky lan moo waral lu ñaaw laa xamut Macky Sall lan moo waral lu ñaaw nga def lu raf lu ñaaw lii lu rafet lii ah bu futti doomu jàmbur mu nekk ci ay seen yoo xam ne non no non non non non non mais nag xam nga Macky nee nañ la lépp loo def rek suba ba ngoon jot yàlla weer la te Macky nanguwoo gëm na yàlla dalay weer xoolal ña yóbbu ah te dañu jël nag benn équipe sélection ne ko de mais xam nga lu lu toj diir bi lu tax affaire bi fuité parce que fi mu nekk nii dañoo bëggoon Sonko ñibbi tey tey tey tey tey këram ñu ne ñu libéré nañ ko ñu toog même pas deux trois jours vidéo yi génn vidéo yi génn dégg nga xam nga lu tax lu tax lu tax loolu amut à part que Sonko nanguwut xam ngeen lu tax amul yéen a ngi xam lu tax amut ah parce que montage yu video bi ki koy def c'est appareil euh, bu ñu jëndee ils l'ont acheté ils l'ont en dehors du Sénégal vers les pays asiatiques la ñu jënd appareil boobu appareil boobu soo ko jëlee teg bu euh, bu bu ça peu de minutes mu mu mu accordé samay mu mu mu mu mun a wax samay ni may waxee man doomu aadama peu de minutes mu jël sa voix dégg nga lenn rek la appareil bi munul parce que mun naa waxee nii mu génn mu wax tombe may def beneen geste ñu ngi monte nag ñaari film la déglu leen bu ma lima ma leen wax bu baax boo xam ne Sonko moom kenn mu toog di avouer les avocats de Sonko di ubbileen seeni nopp li ma la ñuy wax. li ma la ñuy wax di ngeen ko gis waaw mais nag xoolal bés bu ngeen tegee seen diir ñu toj ko Macky sàll ay alal nga am di dem def lu la neex ci àdduna bi jënd sa ay matériel lépp mais Macky nag da nga xamul benn affaire alal ni la ko yàlla mayee la ko mayee ñeneen ñi Macky xamoo ne yàlla ba yow rek deful mayu la ko yow kese Macky ni ngay def bay def lu ñaaw Macky li ngay def bay def lu ñaaw am na koo xam ne xoolal na fa nga defee lu ñaaw ñun moom la ñuy fay am suñuy am am suñuy renseignement Macky tu es prêt à faire du mal mais nous on est prêt à te dévoiler dévoiler tous tes secrets sa alal da koy jël di ko jënd di koy jëndee ay doomi aadama pour ñu def lu ñaaw di ko jëndee ay matériel pour def lu ñaaw xoolal ñun ñu jël suñu alal di fay doomu aadama yooyu ñuy wax ñu luy ngay def nga xam ne donc jaratu ko jaratu ko Macky Sall lu ko fi jar ko fi jar réew nguur lu ko fi jar